dara réeruma fa gis nga ruq-ruq bu mu mën a doon ci présidence teg naa fa sama tànk luy xew bi présidence teg naa ci sama bët du foofa ma jaaxal may wax ñi may déglu ñi leen suñu ma nee Abdoul Aziz fan nga liggéey te bëggatoo fa liggéey ba addina tukki ma ne la mooy présidence de la république en tant que conseiller ndax lan ndax liggéey amu fa binta boo bëggee gis barab boo xam ne nii moom la ñëpp soxla te liggéey amu fa mooy présidence de la république xam nga lu tax

sos moy mhm. Souleymane Ndiaye mhm. junñu nga ko Souleymane Ndiaye ingénieur la mhm. en génie civil ba nopi yalla daf ko may ci walu normalisation ñi ñi déglu normalisation leen rek moko ko tax a jóg mooy Souleymane Ndiaye yàlla baaxee na ko ci walu xam-xam ba way bu mu doon ba ci sunu dëkkuwaayu bopp yi nañi installer courant bi yalla may na ko xam-xam ci nam wara nañ ko war a installer ba du indi jëye mooy lakk yi ñuy xam lakk yi ñuy tudd ci marché yi mën na ñàkk Souleymane Ndiaye yàlla may na ko xam-xam ci wàllu yi yàlla may na ko xam-xam ci wàllu yàlla may na ko xam-xam ci wàllu yi ba takk-takk yi am ci marché yi eh, ñu nuyu ziyaare sunu mag mu baax bi nekk Touba sëñ Mountakha nga xamni ni jamono bu djey amé ci Touba. Mhm. ak feneen fudul Touba. jamono bu diggé ni dañu mhm. bëgg tabax juma. mu jël ci gafagaam joxe. Mhm. lu ne lay daj ci Touba. waaw barki dem ci mujj ba la ba mu marché la occas. na mu taxawé rafet taxawé bu rafet bi mu mat mat kilifa sëkk. na ko de waaw. Euh, Souleymane Ndiaye. yalla baxé nako ba tak tak yoyu di am ci marché nañu installer courant bi. xam-xamam màcc na ci ba suñu jaaree mom ni mu gisse mbir mi de yàlla dogal detul bari ci rew mhm. souleyman Ndiaye ki aéroport Ndiaye bu Ndar souleyman Ndiaye mom il a directeur des des directeur des infrastructures aéroportières c'est construire mhm. aéroport de mhm. Saint-Louis Ousmane Ndiaye moy ki nga xamni ni mom la yor ci Petite Côte bi ko ko Amadou Mame Diop di jox. ndax mhm. moom moo nekkoon directeur général sortant. Mhm. di ko ko jox dañu ko Souleymane Ndiaye maa ngi lay jox sakku waaye li ma lay jox su may génn fi muy daanu. Mhm. Souleymane Ndiaye. joyanti sakku mhm. ba salaire yi ndawul fay mhm. mu koy fay sax le 25 du mois mhm. kooku moy souleyman Ndiaye nek ci bop parti bu pourtant Souleymane Ndiaye mi amna un temps ñu doon wax ne dafa daw parce que gestion am jaa baaxul si c'est les chroniqueurs du du projet si ñoom lañ ko déggé woon bu déggé déggee bi wax mi ngi daw xam nga

koom-koom bu ñu moomal suñu bopp pour mën ci xettali askan mhm. muy ñaareelu pàcc bi mhm. ñetteelu pàcc bi mooy li ñuy noyee que naan mbaa sell na mhm. muy suñu environnement li ñu wër ci kaw nag reen yi nekk loo xam ne nii moom la tubaab de état de droit bu premier ministre mooy tëj yoon tëj te yoon sax du tëj société mooy ñaan ñu may ñu dàmp ko ndax dañ ko tooñ kii mooy Souleymane Ndiaye moom moom moo comme parteem yàgg na liggéey ci terrain bi qui créer créé coalition Manko le Sénégal. Mhm. ñu joxanteeg loxo moom man mi nekk ci mouvement pacte institutionnel de défense des institutions de la mhm. République et de la mhm. démocratie. ñu joxante loxo ànd ci ay kangam yoo xam ne à la allah góor ak jigéen. mu samp Manko liggéeyal Sénégal. tout lui atteint coalition bi te manco bokk Manko. bokk na ci Manko président bi fi nek ba 2029 ci kaw la montée ci tableau. bureau assemblée nationale nekk loo xam ne nii xel mën na ko nangu. Mhm. kooku maa ngi koo liggéeyal Sénégal euh, te itam jaaram jaar jaaram. Mhm. yaram tegginam ak xam mhm. li mu doon. te itam xereñ ci métier ak yéene bu rafet bu mu am ci Sénégal ak taxawaay yoo xam ne ni war na ni war na ni mën na gunge Sénégal ndaw la. ñu jox ko loxo ànd ak moom ci maa ngi koo liggéeyal Sénégal di ñaan. Sénégalais yi may moom Souleymane Ndiaye toogu yu.

moo nu féete ndaw. Mhm. kon moo nu ëpp kàttan. ñun itam li ñu xam ak kës néew mu néew mu bari ñu laabiree ko ko mhm. ëllëg. bu ñu amee ay togg ci pencu ndew réew mi. Mhm. ànd ak moom ci liggéey bi. pour lan pour saaga jóg fi. xaste jóg fi. jiw jóg fi sos de jóg fi. ngeen taataan ci ku mel ni man. ku mel ni ci wàllu journalisme Binta. ku mel ni Thierno Diop ci wàllu chronique ak taarixu politique bu Sénégal. yéen ndaw ñi ñu ànd ak yéen di taataan ànd.

que ne benn xeet la benn voie de contournement. Mhm. pour après d'autant plus que euh, xam nga. <laughs> xam nga koo xam ne nii da nga ni da nga am mouvement. Mhm. wala da danga am parti wala danga nga bokk ci coalition. Mhm. nga ni ko fa ñukk. dem fekki koo xam ni lu mel noonu la yor. yaa wóoluwul sa bopp. ma dama dul xam naka la ñuy wóolu ku wóoluwul boppam. Mm-hmm. man Abdoul Aziz mm-hmm. rawuma Ken mm-hmm. gënuma gënuma ken day gënuma ken bàyyi ëppuma ken xam-xam waye gëm naa gëm ni li yor di pacte institutionnel Duma ko jaay ken dañ mën nañu and ci nga japp fi ma japp fële mais man Duma la jaay lima duma la jaay lima yor mais est-ce que souleyman nekul di waxtaan ak ñom ci souleyman déedéet Souleymane Ndiaye mm. dafa am pacte bu tuddu synergie pour le développement synergie pour le développement durable mm. Amoul benn pour parler avec Pastef mhm. coalition Manko du Sénégal Amoul benn pour parler avec Pastef Souleymane Ndiaye boroom xam-xam la bu yàlla baaxe mhm. mu am yéene di ndaw mhm. kartanam mu yéene ko euh, réew mi nga xam ne nii Da ko wax faral day faral di wax ni man Souleymane Ndiaye su fekkoon la ma bëgg luma ma lekk lu ma naan rek mën naa bañ dugg ci politique Yalla baaxe na ma waaye dama jàpp ni am na fu ma am na foo xam ba ma fa tolloo. Mhm. bu bu dul woon Sénégal ñoo génne moo génn ci gafakaam. jàngal ma ba ma doon li ma doon. Mhm. kon du ma doon li ma doon. Mhm. kon nag. dafay jaar mhm. man itam ma gestu réew mi ma yar ba teg ma fi ma teg mhm. looloo tax mu dugg ci politique ñu ñu lu boobu taxawaay mhm. mu féetalu ndaw ñu jox ko loxo pour fas yéene ànd ak moom li ñu xam ñu xamal ko ko li mu xam nu xamal nu ko ñu ànd ak ñi ñu bokkal coalition bi yëpp dagaan ay toog ci pencu ndawu réew ma pour nekkal fa nekkal fi <laughs> askan wi nekkal fa askan wi lu tax ah, ndax li weesu di pëccëxoo ña ko fa indi woon xam nañ leen coalition bi nga xamni ni nii tête de liste bi moy Macky Sall. Mhm. bi nga xamni Amadou Ba moy moy moy mooy tête de liste bi. Mhm. nga xamni Sonko moy tête de liste bi. Mhm. bi nga xamni euh, euh nu mu tuddati. Barthélémy Dias Barthélémy Dias tête de liste mais ñom ñoo doon rayanté ci pencu ndew réew yi yii ngeen jëlaat ñooñu ñu fessat fa dell. delloo buy ci boy boy ba. ñu ngi rayanté ci mbedd mi. mbedd reyante bu ñu rayanté ci mbedd mi ñu yóbbu ko ci pencu ndew réew ma. ñun pour fànq lolu pour loolu féetanu gannaaw ndax. pénc ndaw réew toogaayam dafay yóbbu réew kanam bu rafetee. moo tax ñun manko liggéey Sénégal ñu tàllal leen loxo. ñi leen ay député ngii. yoo xam ne nii bu ngeen leen duggee pénc ndaw réew ma. damay giñ ci alxuraanul karim lu ma dul faral def parce que def ko def danger la. Cheikh Seydi Hadji bi muy santaane ñeent la santaane lu juutu mu jóge fi. dañu na ngeen saxoo istigfaar. saxoo istigfaar mooy lan. mooy fu ngeen toll naan astaghfirullah ndax. bu jullee ba pare sax dañ lay bindal bàkkaar mm-hmm. ñaareel bi mooy ngeen saxoo salaatul fati wala salaatul ala bu ngeen mën muy raxas seen ruu di leen dugal leer ci yéen mm-hmm. ñetteel bi mooy ngeen saxoo ñaan sutura mm-hmm. ndax ci la lépp xaj ñeenteel bi mooy bu leen fekk mukk ku def safaan ngeen tëgg ndënd topp ko di ko jébaane kon diglewul giñ moo tax man du ma giñ ndax sunu mag mi digle wu ko boolewu ko ci ñeent yi mu digle mm-hmm. waaye danaa giñ tey mm-hmm. li may giñe tey mooy man Abdoul Aziz Diop mm-hmm. ak ñi ma àndal ci manko liggéeyal Sénégal ñu am ay togg pencu ndawu réew mm. bu pëccaxoo jugul ci assemblée nationale man ma démissionné sama poste de député mm. ñun ñooy dindi pëccaxoo ci assemblée nationale pëccaxoo mbaa dina fa jógee activiste yi ñu gis ñun ñu waa Sonko bi gis ngeen dama ne leen ñun waa manko garabu garabu yeeg xeex xeexkat yi ñoo fa nekk xeexkat yi xam nga lan la ñu ragal mm. kuy xeex comme ñoom lañu ragal. Ah. ma wax la tey. Mm-hmm. lan mooy saafara yi. Mm-hmm. ñi to ñi tolo njaan mm-hmm. seen safara leen rek la. xastekat lañu. fenkat lañu. maanaam wax lu dul dëgg lañu. dañuy sos dañuy saag. dañuy jëw ñooña ñoo ñi nekk ci lëndëm. dëgg la lëndëm lu ko mën. leer a ko mën. ñun leer la duggee penc ndawu réew. dafay fuq bët. kumu mu fukk sa bët ñaar yoon ngay feñ mhm. ñettel bi nga dem sa yoon ni duma dem penc ndiw rew ma ndax leer ga fa ne mhm. fay fukk sama bët leen rek mo la mën a dimbali moy mhm. nga bëgg leer ni bismillah ñu and ak yo defar sénégal dëgg la loloy ma looloy maa Sénégal. Ah. leer ci pencu ndaw rew ma pëcc xoo ñu gannaaw. et puis sénégalais loolu lañu soxla une assemblée de rupture bo xam da dafiy nekk au service. ah du peuple sénégalais mais xam nga tamit ni ñi tànnee député. Euh, euh, docteur ni ñuy mm-hmm. euh, euh, député toujours da ngay nek euh, un député à la solde de Donc il faut aussi ñu xalat ko aussi waaye député mm-hmm. du wayu kenn dëgg la waayu askan bi la waaw mohammed mm-hmm. boné wayu waayu kenn rek tam nga nubbuwaam manam li tax ñu tuddee ko mohammed muy yonent du yonent bi mujj su nekké sa way rek tam nga nubbuwaam mom le Cheikh Ahmed Tidiane Sy to Maktoum mhm. député mhm. député way xam len moy lan moy mhm. ko xamni du wayu kenn du wayu Sonko du wayu Macky du wayu Amadou Ba du waayu Barthélémy Diaz du wayu sax mustapha Sy ndax mustapha 2006 mustapha Sy lay wax kuy kilifa Cheikh Ahmed Tidiane Sy to moko jur mooy waajuram bu góor coalition bi nga xam Barthélémy Diaz mo nek ci bopp bi ça sa kaddu mhm. na wax mhm. Moustapha Sy bu waxe lu muy wax la bayam 2006 champ de course goudi gamouga mhm. député dafa am lu représenter du kon Moustapha si bu mu su de waxu bayam bu mu ci coalition bo député ma député ma dembal lañu ah ndax bayam wul ah, <laughs> coalition bobu ñu fa nek ñoñu nañ ko defal boo nee. waaw Thierno Bocoum. waaw Abdoul Aziz ni la maa ko jàngal. communication waaw benn. waaw keneen kat ngay wax. yàgg na taxawal réew mi Barthélemy Diaz Barthélemy Diaz ngay wax Barthélemy Diaz ngay wax. waaw yàgg na borom Dakar. mais ma dégg ma ñëw. Mhm. waaw. Barthélemy boo ko nee xam nga Abdoul Aziz Diop mun la xam naa ko bu baax. Mhm. waaw yéen xam naa ko mhm. su jubloo ci liggéey. waaw. te kenn mënul wax ba mu jóge ci. Mm-hmm. lu dul dafa dëkk ma liggéey. Mm-hmm. mën na liggéey. waaw ku ñu jox lu day ni ndakaaru. Mm-hmm. ngay tontu ku ñu joxul dara. kan kan ku mu tontu. non damay damay wax rek. yow dañ la jox ndakaaru. waaw dégguñu ko muy euh, weccoo ay kàddu euh, yu tegginewul ak ñiy dal ci kawam dégg nañ ko dégg nañ fii li ñu fi weccoo ci ay wax. mais jaru ko. ban loolu. Tamba. pendant campagne. non non na ko nee na. Tamba lapsus la woon quoi. loolu lapsus la woon mais lapsus la woon lapsus la woon ko poussé rek euh, au bout. d'accord voilà mais dama ni. Mhm. Barthélemy Dias su mhm. fekkee ne dafa yittewoo Ndakaaru gi mu mhm. yittewoo ba nekk maire. waa Ndakaaru wóolu ko def ko seen maire. su fekkee ni liggéey la mën na ko. na ci jublu te bu mu gestu. waaw mi ngi ci liggéey boobu nag. waaw chaque jour ñu won ñu ay ay mi ngi terrain bi ah mi ngi Tambacounda mi ngi hmm. Kaffrine. mi ngi fépp dama ni mi ni. chaque jour ñu won ñu en fait li euh, muy liggéey. dama ni hmm. loolu moom mooy moom mooy hmm. affaire bi. mais di tontu premier ministre. wala ngay tontu keneen loolu du affaire bi. affaire bi mooy li nga mal muy defar ndakaaru nga dëkkmal defar ndakaaru te doo gëstu. non Barthélémy dafa ne premier ministre mënoo. da ngeen télé fépp télé partout. waaw kay et que ñoom seen kii sax seen contrat de législature. bi ñu soumettre peuple mën lire ko. mooy bëgg nañu. comme président bi tam ni mu bàyyi nii champ bi premier hmm, ministre bi. Hmm. bu ñu gañee ñu tabb benn premier ministre. pour ñoom tam au moins ñu sauver Sénégal. <laughs> comme président bi ñoom ni ñu ko gisee si seen i wax. ah président day nelaw de te yeewoogul très bien. bon loolu lépp sañ na koo wax. mais li ci nekk mooy. Hmm, mooy dama ni. ñi ngeen di tudd

ko ko fa toogal mooy Cheikh Tidiane Youm. waaw sàmm sa kaddu. waaw dama ni sa kaddu yàlla nañ kaddu yàlla. waaw mm-hmm. sàmm sa kaddu. budul mm-hmm. kaddu yàlla jarul <laughs> jarul sàmm. Mm-hmm. sàmm sa kaddu yàlla nañ kaddu yàlla. fas bir inna waxdallahi lxaq. wala yastaqifannaka lazina la yuqinuun loolu li muy firi mooy. yàlla nee na na nga muñ. yow Binta. ndax lu ma diggee danaa ko joxe. waaye bul sàggan. ba ñu gëmul seen bopp ba di ma gëm man yàlla. di la déstabiliser. kon bu kenn nangu. kenn di le déstabiliser ci campagne bi nañu wax fayday campagne bi soleil campagne bi suma ma ci ca péncu ndewu réew mhm. am fa ay togu représenté wuma ma nit représenté wuma ma groupe mangi ngi représenté askan bi nga xamni ne nii dem wote bama nek député mhm. té mom la fay togal ndax ay soxlam xamna ko té dana ko fa jibal mhm. ndax circonscription bama ma la fay metti xamna ko

35 qui 75 population yi. 35 hum. ans am. yi. peut-être bi M23 ak yoy xalé sax politique. Hum. conscience politique. Hum. lo tax tay y favoriser ñu Ousmane Sonko bon am marge bu am pour bu diviser on ne sait pas y' a combien de coalitions. de grandes coalitions de l'opposition, xam nga pour man voilà pour am sens xam nga mhm. dañ wax dañ nekk ci campagne électorale mhm. campagne électorale bi lu ko tax a jóg Sénégal moo bëgg a yeesal penc na wu réewam le 17 novembre 2024 mhm. ña ñu fay yóbbu duñ député yi kenn dafa am lu ñu représenté dañu représenté askan bi luy seen mëbët lan lañ wax ni ñoom bu ñu fa toogee noonu lañ fay toogee li mooy solo bi ñun bokk na ci nañuy toogee ca pencu ndaw réew bu ko yàlla dogaloon tey assemblée xeexoo de bëggatuñ ko ñun pour assemblée euh,

li xale yi di jéggaani bitim rew dem diko ko fa wuti lépp a fi te yàlla xarabu leen de ndax yàlla mo wax ci kitabam bu tedd bi wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fi lardi muraqaman kaseeran wa sam su ngeen woné gannaaw seen rew dem di wuti ma len di gunge kon xarabu leen waaye la wuti bu amé fi jaratul dem bok na ñun suñu taxaway bu ñu demoon tay ci péncu ndew rew ma li tax ñu gëna a moo mën a wattu suñu suñu géej ndax suñu mm-hmm. géej mo gëna a yaatu suñu suuf mm-hmm. suñu suuf 196720 km2 la mm-hmm. mais suñu géej cent km2 espace maritime la lañ ci war jëlé ci koom ben sax jëlé guñ ko jël ci ay milliards yi wallaahi loolu lu muy wund moy amna nu ñuy watto suñu géej amna nu ñuy doxali ci walu bi walu nap mo xam batelo mo xam gal village yi nga xam dañu fekk dañu dañu dañu fekk baax ci géej mhm. di jëriñoo géej comme mhm. dana fa dellu subb mhm. jël gaal gi dana dellu gannaaw donte jeexal ko ci ñetti weer wala ci ñetti at mënul nekk lii proposition de loi mën na jëmmal na mais ñoom fekk na leen ci parce que ñoom wax pôle territoire développement à la base par la base yooyu yëpp yooyu yëpp loo xam ne nii. Mhm. fi lañ ko fekk la. Mhm. du ñu def lu continuer ko lañ ci war a joyante ñu mhm. mais loolu luñ fi fekk la ba noppi. waaye loi boo xam ne proposition de loi lay doon. bu dul projet de loi jóge ci gouvernement. mu nekk proposition de loi dugg ci député. nga xam ne day day fexe ba Sénégal. ni mu bokkee. ci initiative pour la transparence dans les industries extractives. mu bokk ci fiti la transparence dans l'exploitation de ressources mm-hmm. halieutiques mm-hmm. su ko rogee mm-hmm. loi boobu bu ko tëggee Sénégal bokk ci fiti ah. wattu gi ñuy ànd bi mm. mu